yeah wagwan wagwan eh nimsa asalaamaaleykum askan bi rang muy 5 TV e bomba cladman simila seen bon tabaski maa ngi déwnati nag Sénégal yëpp di déwnati bu toutes les presse maa ngi nuyu journaliste yëpp maa ngi nuyu bata fans yëpp maa ngi nuyu toutes les sénégalais et sénégalaises di leen ñaanal yàlla di ñaanal yàlla sama bopp mbas bi yàlla na fi yàlla gaaw a jëlee ku nekk si jàmm nañ ñaan l'état Sénégal mu dimbale population bi nanu yemale nit ñi ñu nekk benn ñun ak policiers yi ñoo far ñun ak gendarmerie yi ñoo far ñun ak militaires yi ñoo far ñun ak armée yi nous sommes des familles nous sommes des frères nous sommes des sénégalais rang muy 5 TV di bëggee tous les sénégalais sénégalaises nanu jaamu yàlla ndax wa maa umiru illaa li yaabudullah nan def lu baax maanaam na xol set xol yi na rafet lu waay yéen a lu waay yéene euh, sa bopp rek man pour man da nga ko a yéene jàmbur yàlla mooy def noonu lépp loo yéene nit ki lu bon rek sa kaw la yàlla moo ni si alxuraan alimul xaybi wa yàlla moo xam yàlla moo sàkk dee moo sàkk dund àdduna bi du dara fii ñëpp a dee lu waaye bare la da nga ko fiy bàyyi loolu néew la da nga ko fiy bàyyi kon yàlla na yàlla delloo si boppam yàlla na yàlla dimbali sénégal yi Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ñun ñoo gën si àdduna bi man su ma sañee su ma neexee wax loolu Sénégal moo dàq si àdduna bi Sénégal am na jàmm Sénégal am na teranga Sénégal am na xéwal Sénégal nit ñi baax nañu nit ñi dañoo jullitee ñun duñu ay ñàkk duñu yeneen xeet ñun nous sommes des sénégalais. ran muy citoyen sénégalais.